bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si. bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï Abdou Seck nga noonu boo ko gisee Siteu soreetul ndaysaan ma nga sol sita wala tisetu Siteu ndaysaan ma ngay wax ak gars yi di régler li nga xamante ne mooy situation bi ma ngay régler situation bi moom Abdou Seck doomu ndayu Siteu ndaysaan ma nga noonu ma ngay duggaat moom Abdou Seck eey Mbaye Mbadu làmb ngoog ña ngay oto bay xorom Mbadu nee oto bu giree njëkk a taxaw ñu arrière ko indi beneen wis ko xorom moom oto bi yaakaar naa ne Mbadu yalmin bi soreetul yalmin bi soreetul duñ ko laal gaa yaa ngay garder oto ba nee nañ bu ko kenn laal dégg nga noonu. Ndeysaan mbokk yi nee naa leen Siteu soreetul bi soreetul l'adversaire de la Degueur 2 Ndeysaan le vainqueur de Papa Sow le vainqueur de Zos. Mhm. ndax ni fonkee bis bi. Ndeysaan. ña nga noonu xoluma saak ba badu ña ngi ca def bale tey dañoo nara a bale 2S wala nu mu demee noonu ah xali la nga noonu la grand caméraman ndeysaan ndeysaan DG wu bado Ngok san mu nga noonu gaa nga taxaw ca buntu ba di xaar Siteu. li ma jaaxal mooy lan da a fat na falaa yëpp. Ah, ma nga noonu. ñu jege woon Nigéria si nañ de. Ah. waaw gone yaa nii de. waaw Nigéria ñëpp ñëw nañ ñu jege Nigéria yaa ngi nii. Ah. billaahi wallaahi taala gone Assane Thiam yi. ragaluñ lu ñuy def. la da ngay xaar ba jamono neex. Siteu boo ko gën a soxla bu dee da koo soxla ñun ñu ko gën a bëgg sëñ bi te dawuñu si dara. Lac de Guiers dafa war a nekk roi des arènes. Siteu lan war a nekk kon. mais Lac de Guiers moo jiitu Siteu ci ci làmb kan moo moom. kenn moomu kon nag looy wax loolu. waaw mais comme que soxla bi moo tax may wax. dama la sa waay yal mi moom nee na moroom yëpp mos na moom mos a. yal mi moo xewle. waaw donc dafa nam ay R4 yu teppoo ko ak yooyu te ci combat bi la ko nam ma def. yow xanaa xooloo ñu yow. xoolal bu baax. ñun dawuñu lool ñun ñun ñii sax lu ñuy liggéey pour Siteu la ñun ñii lu ñuy entraîné ñun pour Siteu la lépp pour Siteu la. te bu ko yeewee na ko def lu métti nga xam ne nii gaa ne baax waa noonu dégg nga li waa Nigéria laa ilaa ma mare laa ilaa waaw laa ilaa ñun Siteu moo ñu jaral loolu. yow man la yalmin bu ndaw bi. man la borom bi. loo nar sa digganteeg la. la la geelu man nar si moom. na taxaw dëggal boppam. dëggalee luy xew. ñu door ko mu wàcc rek suñu ganaa la. mais noonu du leen may dara. noonu may waaye lan la ñuy may leneen loolu loolu. lan may na taxaw man ngir yàlla bu taxaw bu mu daw. gaa yi neen doole loo ciy wax. doole doole baal ba yel min bi génn di nga xam ndax la da ngay ëpp doole buñ jàppante. Eh. dinga nga xam ndax da ngay ëpp doole wala wala Siteu. du de. déggoo ma la la dëgër dama ko doomu daanu. la dëgër bu ko Siteu doomu daanu. Eh. foo ma fekk di laa la wax bu man la dëgër bu ko Siteu doomu daanu man ma gedd jaamu gën bu ma dëkk man. man Siteu confiance bi nga am ne la dëgër Siteu da daanu la ko dee wala. wadda pang. dañ la ko wax. déggoo ma la wax man Siteu dama la da geer nag nee naa ko nag moytu góose bi. bilaa bi su Siteu moom bu caaxaanu bombardier saa bu taxawoon. laa la wax. laa la wax de. laa la wax de bombardier laa la bu taxawoon. laa la wax bu Siteu caaxaanul. bu ko dóoree day wadd. man Siteu du ma seetaan seetaan combat am. Siteu saa yu bëre de moom ak Sa Thiès laa de. stade laa génne laa la wax. mais man sama xol mënu ma may loolu. damay jooy. turandoo dafa fort. parce bu ma yaakaar. combat moom ak Sakess bi laa wa taala bu Seydi di bëreeg Sakess bala abi sifle laa génne. ma dee ba si yàgg ne stade bi ne tekk ma xam ne daan nañ. parce que si ca ca si te si te la. si ca. ca Siteu Siteu la. amul nga noonu kontaan naa. waaw ah, kontaan nañ yow. jaajëf amul ara day daw rek. Siteu si. jëlal la ilaha illallah. si. dàq nam ragal de lii. Siteu Siteu la. ndeysaan. si. nga ni. Siteu Siteu la. la ilaha illallah. la da geer du geer. loo. la da lu baax da geer. si rek kese la topp. nee la de du guerre lu mu wax dañ koy ŋer dégg nga loolu Badou. ah. la de guerre moo day digg Ndakaaru. safurla. Baba la la de guerre la wax lu mbir dañoo réer a mbir. ba Fallou génn na. Abdou Seck nga ca wet ga. xoolal ma loolu. kii lu mu yor lu mu doon laxasi guro la walla géye nga noonu dumb yaa ngay wax ak xale ya dumb yaa ngay wax ak xale ya ndeysaan yaay jaa noonu badu badu yaay sitaa nga noonu yaay sitaa nga noonu xale yaa ngi yuuxu ay waay dimbaliñ ci loxo bi xale yaa ngi koy wayal ña ngay oto ba yaay jaa ngay wër oto ba badu léegi mu génn gannaaw ba yaay ji wëree oto bi Siteu soreetul déedéet Siteu soreetul am na lu ñuy sànni Seck am lu mu sànni ndeysaan Siteu nga noonu Badou Siteu nga noonu ma nga kaala woo kaala bu ñuul wala wiise ay waay waay may leen ñu ñu liggéey booy may leen ñu ñu liggéey waay Siteu ngi noonu di ma nga waay booy may leen ñu liggéey Siteu nga noonu ma nga kaala woo kaala bu noir bana ndeysaan ña ngay saraxe mbiskit ma nga solo bulson Abdou Seck ngay sànni mbiskit ya Siteu léegi mu génn oto bu noir la war a yéeg ay waay waay waay waay ba na waay nanu muñ moog liggéey ba ànd Siteu nga noonu ma ngay wax ak ay jege ñaaleem ma ngay wax ak ay jege ñaaleem badu léegi mu génn ay waay borom bale bi ma nga noonu